salaamaaleykum oh réseau bi déggante bi neexut waay monsieur commissaire Keita maa ngi lay maa ngi lay jégalu maa ngi bëgg nga dugg nga mottali sa sa réaction bi par rapport ak convocation bu euh, premier ministre bu Soumaré ci euh, sûreté urbaine suba à partir de dix ginaaw bi nga xamante ni bind na euh, benn leetar jébbal ko ne Macky Sall la ko adressé samp ko ñeenti laaj wax ay laajam yu xamante ni.

affaire bu mel nii c'est une affaire très sérieuse du ma ci réagir euh, de manière très légère damay damay wax li nga xam ni ci xalaat la sukkandiku. waaw Aliou Soumaré dafa bind président de la république am lu mu wax. Mhm. mais bind ko mu yem ci ñoom ñaar rek et même bu doon loolu li mu ci wax dafay interpeller ki mu bind lettre wax ko loolu su juunoo rek amul droit wax ko ko. Mhm. deuxièmement daf ko jënd ba noppi jébbal bind ba noppi ko penc ñi jéebaane lettre bi mu bind président de la république mu fekkone sen seen diggante la yem rek on peut dire que sen diggante la yem affaire u Sénégal la mais yëmul fofu parce que ki mu ci duggal bokul fi ci Sénégal hmm, mu ngi bok ci benen rew nek fa kilifa di di di xëccu pour jiite rew momu Hmm. so koy tudd ci dara da ngay seet liñ koy tudd hmm. soo ko tuddaalee tuddaalee ci njiitu réewu Sénégal ñooñu dañu am pour laaj la yow lii nga def lan la même bu doon dëgg sax lu tax nga def ko parce que lépp luy dëgg sax kenn waru ko wax te tooñuloo asamaan nag bii nga waxee dara te ñu ngi xaara ni nga indi firni ci loolu donc lii ñu def ci woo ko sur terre benn su amul woon c'est que réew mi doxut àddina bi doxut parce que suñ ko porté wul plainte fii maa ngi xaarandi tubaab yooyu mu tudd ci biir affaire bi porté ko plainte parce que tooñ na leen voilà maa lay voilà euh, euh, monsieur Kay monsieur Keita est-ce que gisoon na c'est c'est pas trop doytoon la fekk ngeen jokk benn communiqué le gouvernement bi génne benn communiqué tontu ko est-ce que foogoon na doytoon ci loolu rek la fekk ngeen mu wuy ji yoon. dégguloo li ma la wax. Hmm. xam nga fii dañu am habitude sobental. waaw analyser naa réaction yëpp. gisuma ci réaction bu taxaw nit ñi taxaw ci responsabilité bu mat ki kilifa gu mat ci responsabilité bi nga xam ni dafa dëppoo ak niveau bi problème bi am mooy niveau état état du est-ce que lii fii lu ñëw ñu ngi naan est-ce que avertir ko rek doyul woon mais Pape Ndiaye dëggaate magistrat yi wax lu ko neex sosal leen mu ni est avertir ko doyul woon il ñu seetaat suñ may delloo lu mel noonu dañ may delloo analyse ak ay argument kenn du delloo est-ce parce que li ma la wax dama ne la man soo ma ci interroger da nga interroger ki nga xam da wax li nga xam ni dafa xalaat wax ko kii su fekkee doy ak doye bi mooy sa réponse bi nga doon xaar doyut bind lettre rek doyut parce que lii tontu ko war na ëpp bind lettre parce que moom euh, averti dafa démenti moom dafa bind lettre bu rëy wax ci wax yu rëy daal di ci tuuma indi ubbi buntu tuuma mhm. ci ay nit ci kilifa réew mi ci beneen kilifa bu bokk ci beneen réew lan loolu bëgg léegi ñu daal di koy wax ni que c'est faux c'est pas vrai moom mu kon léegi lambar lambar ci Sénégal di wax lu ko neex déedéet dañ koy arrêté fi nga ko waxee ni ko comme da ko wax ci penc mi ci penc mi nga ñuy nga ñuy sosale na sotti dëgg la il faut que nit ñi dugg ci boobu logique mm-hmm. parce que réew mi il faut ñu arrêter nit ñi ci ku nekk wax li nga wax après ñu défendre la ni est ce que lii doyul woon yeen du ngeen laaj seen bop mom lutax mu def li ngeen laaj ko yow li nga wax nak yow mom mo waroon continuer wax na ko ba paré tay mom rek lañ waroon laaj. Eh, eh, benen benen waruma laaj kenn waroon laaj Macky Sall ken war a laaj keneen. jërëjëf monsieur Kayta monsieur Kayta benen ma lay laaj euh, ci lettre bi mu ngi bind benn element bu am solo ci lettre bi est ce que lool mo len déranger la fekk mu ne à la demande sociale pas de troisième mandat sur laquelle je me réserve de me prononcer en attendant votre. non non non man def amalgame. est-ce que vous me def amalgame parce que vous finissez ngay génn li nga ma jëkk laaj tontuwuma li ma la tontu tontu woo d'accord Vous que que daf vous déranger soit na les déranger. Wow. Vous les neexee vous déranger leen parce que ñoom lay waxal. d'accord pourquoi vous les dérangez mhm. le débat il est là-bas il faut être honnête dans la vie. d'accord soo may wax lu mel noonu du ma fa nekk naan la non dérangé wu leen je crois que dama naan la su leen dérangé war na leen dérangé parce que moo leen cokkaas soo cokkaasee nit su après sànni xëpp ko suuf su amee xeer daf la koy sànni il faut rester là je ne sais pas maintenant si je suis pas comme les autres moi, je suis un pauvre soldat. je réagis en soldat. D'accord. merci. Mais en tant que premier ministre, n'ajouterai pas de report des élections euh, présidentielles en 2024. En tant que premier ministre. Mais reporter l'élection, mais qui yow lañu wara continuer laaj man soo ci ciy laaj da may jaxal d'accord da nga ko yow ci Adibou yow affaire report présidentiel bobu fan la la jógee ak lan nga am ci firnde ni lol dafa wara am ba nga ñu indil ci penc ni mhm. voilà la bonne question. très bien mais mais si vous le donnez aux autres. Mhm. pour qu'ils répondent à sa place.

Ah, madame le fait kan kan di ko la président de la république la ko adressé. ko ay mais ko justice. laaj urbaine biñ mais président de la république wax ci lu mel dafa utiliser voie administrative pour un acte extrêmement politique gain politique moo tax mu bind ko ba noppi daal di wesaare li mu bind wut nag léegi jàmmaarloo bu mu am ak président de la république ci ay wax wax jox ma ma wax ci digg penc mi te moom daf ko duural daf ko di est yow lii amul ñu mu xës dugg seen bi gis nga par exemple ku mel ni Ibrahima mu ngi naan loolu kenn war ko judiciariser. oui oui mu ngi naan affaire boobu kenn war ko banaliser. attends un peu. Birahim Seck wax kenn ah. ma ne Birahim Seck effectivement ñëw na ci neef kenn waru ko judiciariser wax na ko judiciariser dama lay jox réaction yi waa Pastef dugg nañ ci nee nañu affaire bi dafa war a leer donc moom fii dafa war a leer kenn du wax Macky Sall mu leeral ka ki wax la ñuy wax mu leeral ka c'est là la là foofu la plainte bi amee sens

déjà le simple fait que mu indi wax indi mu indi tuuma parce que mu ngi dugal nit ci li nga xamni ni da kay indi gàkk-gàkk mën nañ ko ci top ci yoon c'est un acte diffamatoire elle crée un événement autour d'une personne ou d'une personnalité c'est-à-dire li nga xamni ni day indi gàkk-gàkk ci deru nit muy deug budul deug nit ki am na droit topp la ni lu tax ngay génne wax jiitam mooy indi gàkk-gàkk astamaat nag bu fekkee ni li nga wax dafa am importance su affaire d' état nga wax ko mu nar a atteindre nit ki nga xam ne moo yore réew mi indil ko ay gàkk-gàkk ci réputation toppi beneen tubaab bu fi nekkul indil ko ay gàkk-gàkk hmm. soo ko defee lay jàpp dan mën nañ la poursuivre pour diffamation c' des actes diffamatoires hmm. dañ lay yóbbu tribunal correctionnel jugé la sunna waree tëj ñu tëj la sunna waree alamaan ñu alamaan la c' est aussi simple que ça. c' est aussi simple que ça moo tax responsabilité au départ. vraiment ah, monsieur Kayta bu fekk Aliou Badara amoo loo koy laaj man maa ngi lay gërëm ah vraiment réaction am na solo. man man commissaire Kayta benn benn question rek laa am.

waye tontu te tufliwul fëggalu ci dënn seetal ci biir wax yi mu lay wax lu mel nonu dina ci nek mais état est-ce que warna na état warna na ci mel nonu non mo tax wax le lu mel nonu état wul parce que mënon na wax da ngay fen c'est pas ceci wax wax ju ñaaw mais daf ko tontu avec rigueur ni que nag attends-toi à ce que ñu toppale ci yoon. li nga wax tegoo ko fenn attends-toi à ce que ñu toppale ci yoon. style rédactionnel bi nak maintenant mën na am venin. comme nii may waxee man nii sama style bi kenn mënu ko changé ci man mën na am venez mais il faut comprendre que débat bi newul foofu mu ngi nekk ci Aguibou na àggale wax ji na dem ba mu jeex tàkk parce que moo fi indi wax ji moom moo ko sookee

moi je crois que Agibou doit al répondre. doit aller répondre léegi war na dem eh, tontu ji. Euh, commissaire commissaire Keita léegi bu ñu fekkente ne jàpp yàqu yàquluñ ko wuyu suba lan moo ko ci mën a fekk. mais je l'ai dit tout à l'heure lii nga xam ni mooy tuuma. waaw bu question wax ju nekk dëgg wala ju nekkul dëgg. daf di li nga xam ni rek génne nga ko sa gémmiñ teg ko ci penc bi mu indi nit gàkk gàkk. waaw mu mën a yàq deram. loolu lay commencé boo ko defee nit rek loolu mën nañ la ci topp tribunal ci ni yow mii kat da nga maa indil tuuma da nga yàq sama der muy diffamation li nga xam ne day naqadil deru jàmbur ci yëg-yëg bu ñëpp xam nga diffamation la da ko ci war a topp ci yoon délit la comme délit yëpp bu fekkee nag yow li nga indi tuuma li nga indi teg ko ci deru nit mënoo prouver ni loolu am na ba tey day gëna grave ci diffamation bi ça veut dire que yow ay fen nga indi def ko tuuma donc mën nañ ko poursuivre tëj ko kaso wala ñu alaman ko. vraiment moo ko ciy merci beaucoup commissaire kayta di la gërëm ci sa disponibilité ak opportunité bi ñi may ci réaction bi ñi lay gërëm bu baaxa baaxa baax ci baax. si émission spéciale. vraiment merci beaucoup jërëjëf. kon mbokk yi euh, ba tey ñu ngi ci édition spéciale ku mu neex nga participer ci émission bi 78 150 54 54 nga ñëw waxtaan ci réaction yi nga xamante ni commissaire Kayta def na ko nee na tuuma yu mag a mag la ak bu premier ministre ainsi Euh, ancien premier ministre ak Hadjibou euh, euh, Soumaré Hadjibou Soumaré teg ko ci deru njiiti réew mi te nag dëgg yàlla dafa war dem mu leeral ndaxte tuumi boobu du njiiti réew mi rek la ko def dafa mel ni Sénégal yëpp la ko def war na dem leeral mu nekk lu kàddu yoo xamante ni commissaire Kayte moo ko wax. waaw muy kàddu yoo xam ne ku xam ci wàll wi dara moom moo ko wax yaakaar naa état la attaque comme li mu wax parce que président Macky Sall mooy état. donc bu fekkee danga da nga bind état lettre boo xam ne da ko rendre publique ñëpp jot ci euh, état tam dafa war a taxaw comme sànq li ma wax état dafa war a taxaw agir en tant que état mais ci anam boo xam ne quand même dana gaaw nit ñi mën a euh, yeeweeku ci li nga xam ne moom mooy li xew je crois que

Hadjibou Soumaré waaye mën nañ ko ci laaj loolu ci mouvement xeexal Sénégal bu